بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته نيجي عندك سنو ñetteelu بند في مقدمة risaala risaala ibnu abi zeyd al qayrawaani rahimahullah ginnaaw bi mu tuddee yàlla julli ci yonante bi sant yàlla amma baadu ginnaaw loolu yépp amma baadu ndaal ginnaaw bi ma jullee ci yonante bi sant yàlla amma baadu ginnaaw loolu yépp aana naa yàlla na dimbale ñu allahu yàlla wa ak yow aana naa yàlla nañu dimbale nun xeetu lislaam yépp nun jullit ñépp allahu yàlla wa ak yow kon day doon zikru xaas baada am ndax kii sàkku ci moom mu taalif téere bi lay waxal ne ko yàlla nañu yàlla dimbale nun ñan ñun jullit ñépp moom kenn la jullit ñi mu dollil ko ne ko wa iyaaka ak yow wala ahananaa yàlla nañu dimbale jublu ci moom aji taalif ji ngir feeñal ak sant ngir feeñal sant gi muy sant yàlla ci xéewal gi mu ko defal muy xéewalu xam lislaam di ko jàngale tax waxul ahana ni mu ne ahananaa yàlla na dimbale ñu allahu yàlla wa iyaaka ak yow ak yow kan lay waxal mbokkam doomi tàntaam abu mahfuz mahraz ibnu xalaf doon nit ku baax ku dëddu àdduna ku sóobu yoonu yàlla ku amoon xam-xam di kilifa ca Tunis kooko sàkku woon ci moom mu taarif téere bi moom lay waxal di ko ñaanal ne ko yàlla nañu yàlla dimbale te dimbale la xalaa riayati wadaai ci sàmm ay dénkaaneem dénkaane yi mooy cër yi juróom-ñaar aljawaarix wala alkawaasib juróom-ñaari cër yoo xam ne benn bu ci nekk mën naa mooy yàlla bàkkaar bu nit di def mooy bu muy def rek benn ci juróom-ñaari cër yooyu la koy defee muy déggam samu basar muy gis wala al lisaan làmmiñ mu nit dana déglu walla mu xool wala mu wax lu lu xaraam jëlee ca bàkkaar kon ñett ngi cëre ngi noonu yoo xam ne bu ci ne mën na cee mooy yàlla borom bi naka noonu al yadaani ñaari loxo nit dana mooy yàlla ci ñaari loxoom war rijlaani ak ñaari tànkam wal batn biir wal farju pëy juróom-ñaari cër yi ci la nit di mooyee borom bi subhanahu wa taala jàng tazawudu shobban ak eh, yenen téré dañ lay béral cër bu né ak buntam dila léral nanga ko wara watto cër bu né ak bàkkaar ya muy def waaye nanga wara watto cër bobu ba mucc ci bàkkaar ya ndax kat safara amna juroom ñaari buntu tolloog juroom ñaari cër yi motax cër bo ci moy yalla te yalla la buntu bam mu ci safara moy sa buntu wal a'yadu billah ku góorgóorlu ba sàmm juróom-ñaari cër yi nag mel na ni tëj na yàlla tëjal na ko juróom-ñaari bunti safara yépp kon yàlla nañu yàlla dimbale ala riayati wadaihi ci sàmm ay dénkaane muy cër yi cër yi ay xéewal la ñu war cee sant yàlla ci di ci jëfandikoo lu neex yàlla mu doon aw yiw wëli suñu di ci mooy borom bi wa xifdi ma ak wattu لغا قمنا أو دعنا دينك ننوكو من شرائعه أي شريعة شريعة لغة مويفر أو يون شريعة الله مويون وي يالا جارلو أي جامم موتا شريعة موي أتي يالي موي ندقلي موي تري نيال بغنغ مل لولو موي موي موي شريعة موي أمانة دي برومبي وحنه doomu aadama yenu na ko gannaaw ba ko asamaan yi bañee suuf yi bañ ko montagne yi bañ ko inna aradna lamanata ala alsamawati wal ardi waljibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha linsanu innahu kana zaluman jahula amaana googu nag tax nit di doon mukallaf am ndigal yu dal ci kaw mu war a jëfee am yuñ ko tere mu war a bàyyi man man cee amee texe ëllëg loolu lu rëy la yàlla nañu yàlla dimbale bañ wattu ko jaar ci yoon wi ni mu ko bëggee wa xazima ak wattu li nga xam ne aw daana dénk nañu ko min sharaaihi ci yoonam hmm. sharia mufrad bi mooy mooy yoon lu tax mu def sharia mooy sharia dafa bari ay at ngay fekk julli woor fekk azaka xaj ak ni nga ni nga ko xamee ay at yu bari la fa innaka naka yow ki muy waxal muy mbokkam moom sàkku ci moom mu taalif abu mahfuuz xalaf ibnu maxras di doomi tàntaam ay mbokk lañ ñoom ñaar doon ay kilifa euh, nga xam ne ni àdduna bindoo tey ñoom seen seen seen dëkkuwaay fa ñu doon dund mooy tunis ca xayrawaan foofu la nekk abu mahraz mi foofu la dëkkoon sorewul ak moom dëkkuwaay fa innaka naka yow sa'altani laaj nga ma sàkku nga ci man an aktuba ma bind laka ñeel la jumlatan jumla jumla mooy mbooloy wax muxtasaratan bu ñu gàttal min waajibi umuri diyanati ci aji war ngiri diine risala bokk na ci téere yi njëkk ixtisaar ci madhab bi daanaka ya ko jiit woon ay mutawalaat la ay téere yu gudd moom bokk na ci njëkk ixtisaar jàngale atte yi ngir mi ci baat yu gàtt muxtasara mooy loo xam ne baat yi bari wuñ bu ndaw la waaye nag lim làmboo ci maanaa ak ci xam-xam lu yaatu lu bari la li muy jàngale mooy lan min waajibi umuri diyaana ci aji wari mbiri diine mimma mu gën koo firi gën koo leeral mimma ca la nga xam ne tantiqu dana tudd bihi ci moom al alsinatu làmmiñ yi wa taataqiduhu dana ko fas al qulubu xol yi wa taamaluhu dana ko al jawaarixu cër yi li làmmiñ war a tudd la ca jiitu di baati seede yi naka noonu quran làmmiñ julit bu ne war man ndem mën naa wax war naa man dara ci alquran di ko jàng faatixa ak lu mu ca mën a teg di war di digle lu baax ak tere lu bonit naka noonu mbooleem yu baax mbooleem yiñ digle yu làmmiñ di def yi xol war a fas mooy gëm yàlla al imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa bil qadar xayrihi wa sharri yépp yu aju ci buntab ngëñ buntab ngëm ngëm yi cër yi war a jëfee yëpp yi cër yi war a jëf moo xam julli la woor la ya ca doon farataak lañ ca la ca doon ay ngëneel ak yuñ sopp maanaam diine ndax yooyu yëpp mooy diine ji li làmmiñ war a tudd xol war koo fas cër war koo jëfe ak la nga xam ne yattasilu dana jokk bil bi ci aji warja min dalika ci yooyu mina sunanti sunna yii mu wax li ci war bu dee yam am war tudd la ca war mooy tudd baat seede yi jàng alquran tudd yàlla salaatu ala nabi waaye am na yu làmmiñ di wax muy yoo xam ne sunna la lu bari mboolem wax yu baax yi day dugg ci bunt boobu rawat na xeeti tudd yàlla yi naka noonu yi cër war a jëfee yi ji farata comme ni nga ko xamee waaye yecee toppaat di ay sunna moo tax mu ne wa maa yetsul ak li jokk bil waajibi ci la war min daalik ci loolu mina sunan di ay sunna min mu akkadiha moo xam sunna yuñ feddli ya wa nawaafiliha ak naafilaam ya wa raqaa'ibiha ak boo xam ne yonent bi da daan def taqoo ko te da ko daan fésal di ko digle loolu mooy sunna mu akkada sunna buñ feddli lu mel ni witar boo jullee gee nga def shafa ak witar lu say naafila néew néew moom shafa ak witar taqoo lu mel ni jullig ayit tabaski korite lu mel ni jullig istisqa ngir ñaan taw lu mel ni salaatul julli jant bi muuru na wala kusuuf weer wi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu ay sunna mu akkada la min mu akkadiha yuñ fedd li ya wa nawaafilia ak yi nga xam ne ay naafila la yu baax la yu lislaam digle jullit bi di ko def di di di fàggu ay yiw la borom bi waxoon ca xadis xudsi ba jaam bi lim may jaamoo la ma ci gën a bëgg mooy li ma fartaal ci moom bu farta yi matee nag muy góor góorgóorlu ci naafila yi dana dem ba am ci mahabbatullahi ak la ca topp ci ay ngëneel naka noonu raxaay bi yuñ xemem yi nga xam ne lislaam da koo xemem loo jullit bi wax ci ay ngëneel yu rëy lu mel ni ñaari rakkee fajar moo gën àdduna ak lu ci biir képp ku xemem lu baax da nga koy yittewoo ay naafile la yoo xam ne moom it yonentu daan ko def sallallahu alayhi wa sallam doonte fesalu ko wala yu mel noonu dara min al aadaabi ci teggiin daa ànd ak i teggiin jaamu yàlla yëpp lu ci ne daa ànd ak i teggiin waaye jëflante diggante nit ak nit jëflante nit ak mbindeefi yàlla yépp daa ànd ak ay teggiin ci ni lislaam gisee nim jàngale teggiin dana ko jàngale wa jumalin ak ay jumla min usulil fiqhi ci cosaani fiq wa funuunihi ak ay fànnam dana indi ay jumla ci ummahatul masail ndey masala yi ay wax yoo xam ne day ëmbu ay banqaas yu bari dañuy nekk ci suufam cosaani feq ak ay fànnam maanaam li ñu jublu mooy bànqaas yi mooy masala yi nga xam ne moom lay tafsil ci biir téere bi indi na ci lu bari muy téere boo xam ne koo ko jàngate xam ko dëgg-dëgg lu baree bari ci sa diine day leer ci yow moo xam ci ibaadaat yi jaamu yàlla yi wala ci muamalaat yi jëflante yi li muy jàngale lépp nag nee na ala mazhabil imaami ci ngiiru imaam ba malik ibni anas malik ibnu anas mi imaamul ayima malik mi nga xam ne imaam la woon ci sunna di imaam ci xadis di imaam ci fiq wax naa ay yoon ne ngir yi tasaaroo ci àdduna tey ñu bari xam ko muy al madahibul ñoom ñëpp di ay boroomi xam-xam ay nit doyloo seen déggin di ca ànd ak ñoom te seen dégg nag yéen ñuy jàngale yépp nag ñu ngi ko jëlee ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu nga xam ne moo jiitu jamono moo leen mag mooy al imaamu abu am sax ñu wax ne taabii la gis na lenn ci saxaaba yi abu moom kàngam la ci feq mën a ballalu ay masala waaye ci xadiis nag kenn limut ko ci borom xam-xame xadis safanam moy imam ahmad ibn hanbal borom ñent ngir mom mo ci mujj ñett ñeko jitu jamono waye kangam la won ci xadis ci fiqh nak ñu bari limuñ ko ci tabaqatul fuqaha wuñ ko ci fuqaha wi mu def malik ak shafii ñom ñaar ku ci ne kangam nga ci xadis waye kangam nga ci fiq ku ci gën a doon kàngam nag Shaafi'i moo seedeel boppam Malik nu mel ci biir boroom xam-xam yi fu ñu ne boroom xam-xam yi Malik mooy biddiw bi nga xam ne bu fenkee moom ñépp moom lañuy gis moom lañuy ñuy gindeekoo moom lañuy ñuy leeroo radiyallahu anhum ajmain kon ngiru Malik ak ngiru Shaafi'i dëgg-dëgg seen wàccuwaay kawena ndax ku ne ci ñaar ñi da ragne ko ci xam-xamu ragne ko ci xam-xamu fiqh waye malik mi mo doon sëriñu shafii malik jangalna imam shafii amna sax ci borom xam-xam ñuy wax ne shafii moy talibi bi gëna mak ci talibi imam malik te shafii mi jangalna ahmad ibnu hanbal nga xamne kon malik sëriñu shafii la di sëriñu sëriñu ahmad abu hanifa nak dañuy wuté ndax malik jàngal nako wala jàngalut ko waye wuté wuñ ci ne kàngam reuy ci ci ngiram malik jàngal na nga xamne kon malik jàngal na kàngami ngiru abu hanifa jàngal shafii shafii taalibeem jàngal ahmad motax ngir bu ne rek malik dara la ca waye ngëneel la la ko yàlla defal ci sen bir nak moy fete gam fete won madina munawara gane aduna madina màggee fa jàngee fa jël xam-xamu borom xam-xam ya ba ñëpp joxoñ ko ne ko yaa fi raw ñëpp joxoñ ko nekko jàngaleel ubbeel ci diina ji ndax dajale na xam-xam yépp Malick tàmbale jàngale jàngale Madina kon Madina la ganee àdduna fa la màggee fa la jàngee fa la jàngalee lim liggéey ci lislaam yépp Madina la ko liggéeyee ci jamono joo xam ne sorewul ak jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuy ji boroomam ba yonent wuy jee boroomam saxaabaam yi ku ne xam ne ne madina moo doon capitalu lislaam saxaaba yi am na ñu génn dem ci dëkk yu wuute waaye li ëpp ci saxaaba yi madina googu lañ nekkoon nga xam ne fi la leer gi bale fi la njub gi di génnee fi la xam-xam bi génnee lu jamono soppeeku soppeeku lu mu yàqu-yàqu ñoom danañ dese dara loo xam ne rek du bokk ak yeneen barab ya motax malik comme dafa jël xam-xam wa madina yoy ñuy woyé mazhab mazhab ahli al madina mazhab ahli al madina waye am lu am solo muy amalu al madina lam fekk wa madina diko def waaw malik mi ngi jangé ci ay tabi'un masalan ku mel ni sëriñam naafiq naafiq jàngee ca sëriñam ibnu omar mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bëri na ay yoon yu ni mel waaw ma nga xam ne waa taabi'un yii mu fekk li ñuy jëf nii ñoom ñoo dund ak saxaaba yi jële ci saxaaba yi saxaaba yooyu àndoon ak yonent bi di jëf kon mbir mi bu bu buñ jëfee lu wuuteeg lu baneen dëkk yi jëf rek lii day gën a dëgër ndax lislaam gi yépp fii la mujjee fii la jógee di tasaaroo ci àdduna bi waaye boo bàyyee loolu yépp it nag xadiisu abu hurayra يونت بي صلى الله عليه وسلم وعنه يوشك الناس أن تضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم وأفقه من عالم المدينة يونت ينن رواية لا تنقطع الدنيا حتى يكون عالم المدينة تضرب إليه أكباد الإبل ليس على ظهر الدنيا أعلم منه حديث بدال ننا نبني قونا نيو ورثيني قلم دي داوال دي داق دي دم di wuti xam-xam waye duñ fekk ku upp xam-xam borom xam-xamu madina bi kan moy borom xam-xamu madina bi li upp ci borom xam-xam yi firi hadith bi dañ ne imam malik la mom la yonent bi sallallahu alaihi wasallam don junju mom la don joxon ci wa am jodu it lol la wone ndax boo ne du malik mënoo tek kenn boo ne du malik mom da ngay dakk wax yonent bi wala ngay xaar ku ñewugul bok ndax malik fofu mu togon ci madina dir bu tolni bam fa tok ak lam fa jàngal ci mbooloo ci xam-xam bu wér bu leer bu set amagul te incha allahu du am keneen ku mel ni moom kon dëgg-dëgg moom la yonent bi sallallahu alayhi doon junj ci xadis boobu moo tax borom ngir yi ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ ay tànneef lañ ay nit ñu baax lañ waaye Malik daal mooy Malik radiyallahu anhu wa anhum ajmain mom nak mi ngi jangale ci mazhab imam malik lan moy mazhab xam nga diine jamna na masail yu leer nañ yo xamne kenn du ci wuté julli farat la tusbar ñent rak la dañ koy yalu timis ñet rak la ñettu ñëk ñaaru ñëk dañ koy biral bu mujj ba fatih lañ ci jang yoyu du mazhabu kenn ndax ñepp dañ ci depo du mazhabu kenn yenn masala yi nga xamne nak wahin wi ci alquran wala ci hadith wala sax gisuñ fu alquran wala hadith addo waye nak dañoo qiyas dañoo ballalu atté bi ci ni ñuy ballalo atté sharia yooyu borom xam-xam yi di wuté wuté déggin yi gisi gisin yi yooyu la ñu ay mazahib la malik déggé lam gis ne moom la lool mooy mazhabam ci misaal ci misaal bi yàlla ne euh, jigéen ji borom këram fase day addawu day muñandiku salaasatu quru xuru mufrad bi di xaru xaru mooy lan xaru ci luxa arabe day firi laab di firi mbërëg kon ndax ñetti laab la wala ñetti mbërëg imaam Malik dégg na mu ne ñetti laab loolu mooy madhabam beneen imaam Shafii ne moom ñetti mbërëg loola mooy madhabam mooy masaayil yooyu nga xam ne dañ ciy wuute ku ne na nga gisee Malik nag am ay déggin yenn borom xam-xam wuteek moom loolu mazhabam la waaye am ay xawaayit ay règle yoo xam ne ci la doon dox jàngal ay boroomi xam-xam yu mag ibnul qaasim ñoom ñoom ay taalibe Malik daal bari nañ ci kaw suuf waaye seen wàccuwaay ci xam-xamit boroom xam-xam yépp xam nañ ko moo xam ni jonjoog Malik jàngee ci moom jëlee ci moom walla ñooña ñañ jàngal ولا صح ني نيوات غناوي وايي يالا ماي لين خام خام بو ري با قواعد المذهب لير كي نيوم ني باللو اي اتي لولو موي غيرو مالك بو بولانتي لب رضي الله عنهم اجمعين نيوم نيوم امام ابن عبد البر ولا ابن العربي نيوم القرطبي نيوم اشهبك صحنونك برام خام خامي غيرمي بري نان لول لول تي مدارس ييب نك غيرمي دا فام اي مدرسه اي ايكول Euh, li muy jàngale moom ala mafhamil imaami malik ibn anas rahimahu yàlla na yërëm ko allahu taala euh, yàlla kawe na wa tariqat yi ak yoonu imam malik yoon yu mu daan jaaree ngir génne atte yi maama ànd ak la nga xam ne sahala yombal na sabila ma yoonu la nga xam ne ashkal lënt na min dalik di loolu ngay jàng sarfu shakala ak ashkala fi'lu la boo xam ne euh, mufra sulaasi ba ak rubaay bi afala ji ñoo bokk maana di di yombal bépp masala bu mu jàngale ko moom ibnu abi zeyd ci anam gu leer min tafsiri raasiqin jëlee ko ci firiin way sax ñi ci xam-xam raasiquuna fil ilmi mooy ñi nga xam ne seen dund yépp dañ ko yemale ci xam-xam di gëstu di jàng di jàngale yàlla dana leen ubbil ay buntu may leen ci xam-xam loo xam duñ ci yem ak koo xam ne yaa ngi tey yeneen léeg-léeg rek nga ubbi téere bi wala léeg-léeg nga gëstu ci dara delluwaat ya nga nekkoon nit moom lu mu taxoo rek dana ci am xam-xam ak man-man ak wàccuwaay boo xam ne du bokk la ku ko takkoowul kon raasiquuna fil ilmi seen firi ci yenn yu ci ci yenn masala yi yi nga xam ne wuute am na ca walla ak lëmu am na ca seen firi lay jël وبيان المتفقهين اك لير لو ويدغ فقه لير لو ميغا خن اي فقها ولا ندي اي كانغام تي مذهب نيوم امام اشعب ابن القاسم نيو ملني نيوم نوم داني ليرال لو بري تي مثال يونت داي واخني البينه على المدعي واليمين على من انكر بروم خام خامي نيو ليرال ني بو فكي كي نيو تومال مستجعفو مستجفلانتي كيكو تومال تي موم ادي تومال جي امول سيدن كدو جار نيو ديكو گيج گنجلو yoon day wax ne laa yaxtubu ahadun ala xitbati aqih ñu leeral ne loolu mooy ida rakana wa taqaaraba yoontu day xaraamal day tere nikaaxu shigaar ñu leeral sarixu shigaar wajfu shigaar murakkabu shigaar ila axiriha lima ngir la nga xam ne raxibta xemem nga fiihi ci moom min taalimi dalika ci xamal loolu jàngal loolu lil wildaani ñeel xale yi kama tuallimuhum kom ni nga len jangale huruf alquran xarafi alquran nena ko yow abu mahfuz mahraz ibnu Qalaf, Ya sakku ci man talifu ni mel ngir dang ko beug jangal xale yi kom ni nga len jangale alquranul karim muy lu am solo doomu julit tollu ci jàng ñu jangal ko alquran jangal ko diine yalla ji ñu leeral ne imam Malik ak ngir yi ñuy wax amul ci ñoom koo xam ne sa xalaatu bopp wala sa waxi bopp nga jàngale déedéet li ñu doon jàngale yépp ñoom ñu ngi ko tibbee ci alquranul karim ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la kenn wor ci lii waxi Malik la wala waxi risaala la wala waxi beneen beneen borom xam-xam la waaye lii la yonentu wax déedéet kooka wut yonentu ak imaam Malik waaye boppam moom boppam la bëgg a teg waaw ah, dafa naa la man kay lii laa déggee ci wax yonantu léegi askane Malik nag loola la Malik déggee ci wax yonentu ñu xool yow yow yow mii ak imaam Malik kan lañ war a déglu ay waxam bu dee wuute am na kenn na ngeen déggee alquran na ngeen déggee wax yonentu sallallahu alayhi wasallam waroo sax wax bañ di la déglu ngir ñoom seen tolluwaay ci xam-xam ak yow wax dëgg nag jaaduwul di di dendale seeni tur li yasbiqa ngir na jiitu ilaa qulubihim jëm ci seen xol ya min fahmi diinillaahi dégg diine yàlla ji wa sharaaic ak ay yoonam ay shariam maa muy loo xam ne turjaa def na yaakaar lahum ñeel leen barakatuhu barkeem wa tuxmadu def na sant lahum ñeel leen aaqibatuhu ak mu jëm jàngal ndaw ñi téereb yàlla bi jàngal leen xam-xam mbir la moo xam ne dañ ci danañ leen ci yaakaaral barke ak mujj gu sant yàlla nañu yàlla defal ko yàlla na yàlla defal ñu ko defal ko sunuy ndaw defal ko ndaw yi jullit ñépp muy lu ama am solo kon gis nga téere bi ni mu barkeele mbokkam mu sàkkoon ci moom na ko bindal lu mu jàngal ay xaleem mu bindal ko waaye yaakaar naa ne xale yi ci jàng boobaak léegi ay million lañ yu kenn mënta lim ñum tollu te day continuer rek muy lu reey reey di ci am tiyabu ju bare bare li fek ñi ngi jang di jariñoo xam-xam bi mu bind waaye ka ko won ci momit di ci am tiyabu ju reey loolu la wax ne fa ajabtuka tontu naa la ila dalik maa ngi lay wuyu ci loolu nga wooma li ngir li nga xam rajawtuhu yaakaar naa ko li nafsi ñeel sama bopp wala ka ak ñeel la min sawab man yolup ko xamne allama xamle din allah din yalla ji aw daa wala mu wote ilayhi jëmee ci moom yaakaaral na sama bopp yaakaaral la yolup kuy jàngale dine wote jëmee ci dine motax ma wuy la ci càkkuteef li muy lo am solo tasare xam-xam rawatina xam-xamu Islam ki koy ku ca don dara ak no ca doné dara no ca rek aw yiw la wudul dog dog yàlla nañ yàlla nangul te nangul képp kuy liggéeyal ci diinam ji wasalaamualeykum wa rahmatullah